loolu il faut ñu leeral ko Fadilou Keita il est dans ci ci ci ci ci ci logique am la nekk parce que nit mënuñu laa dénk nga nekk njiit ñu dénk la ba pare ngay bàyyi ku ci nekk di def lu ko neex loolu mënul nekk il faut nga saytu bu baax ku ci nekk li muy def donc bu fekkee ne nag wax dëgg fa yàlla dafa am loo xam ni ngoowul ak li nga xam ne loolu lañ lay xaaree ci liggéey biñ la seet biñ la dénk ah mais il faut rendre compte surtout nag mu nekk loo xamante ne ni euh, ay xaalis gu bëri la CDC bokk na ci banque yi nga xam ne nii ñoom ñooy jox état xaalis donc war xaalis alal googu nag du alalu kii wala kële lu ñëpp bokk la sànq Ablaye mi ngi koy wax léegi par rapport ak ñi nga xam ne nii dañuy jege nguur rek am xaalis loolu il faut il faut mu nekk loo xamante ni dafa war a deñ ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci boppu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur yi c'est pas euh, booy liggéeyal état yow yow waroo waroo servir au contraire da nga war a servir ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ngay liggéeyal donc am na loo xamante ne nii te comme c'est une plainte comme plainte bi fu mu nekk nii dem na dig te ñi ngi def audition dinañu xam li nga xam ne nii dinañ xaaral ni li nga xam ne loolu moo ci loolu moo ci loolu moo ciy mujj mais euh, comme tout bon directeur c'est très normal mu war a am regard ci li nga xam ne loolooy xew ci ci ci ci ci ci ci ci direction mais aussi tamit veiller à ce que ñi nga xam ne ñoom ñoom lay liggéeyal ku ci nekk tâche bi nga xam ne moom lañ la jox nga matal ko ci ni mu waree bu amee ay rëkk-rëkk nga jéem a rendre compte boo mënulee rendre compte nag te ba moom mënu kaa fajal boppam moom mu xool ñi nga xam ne ñoom mun nañoo faj ñu faj ko loolu mooy li nga xam ne nii mooy li gën a logique euh, en attendant de voir ce qui va ce qui li loolu la enquêtes yi di wax pour que ñu gën cee am lu ñu leer mais nag euh, comme niñ ko waxee rek comme ci jubbanti lañ toll moom na ñëpp jubbanti rek waaw ñi ku ci ku ci nekkul woon ci yoon bi nga xam ne moo moom nga war a nekk mhm. nañ la jàppale ba nga mhm. nekk ci yoon ndax nekk ci yoon du loo xamante ne nii dalay gàllankoor au contraire lu lay sauver la yow da lay sauver fii sauver la fële nit ñi war nañoo bàyyi xel que ne gis nga àdduna lu éphémère la yàggul donc ku gis koo xamante ne mu ngi lay jubbanti teg pour teg la ci yoon mais da ngaa war a sant pour mën a sax nekk ci yoon te bañ a nekk ci loo xamante ne nii yow euh, après coono gi ci yow lay gën a bëree te loolu nit ku nekk wala góor gu nekk war na ko war war na ko daw war na ko daw am na yoo te ni nii nag buñ koy buñ koy buñ buñ buñ la koy wax euh, liy olof di naan buñ leen naan sangul ku la wax sangul sa taar la la bëggal donc ñi nga xam ne nii ñoom ñooy nekk ñoo nekkul ci ci ci ci ci ci ci situation yi nga xam ne foofu la ñu waroon nekk mais nañ leen fa par force ñu nekk fa ndax loolu mooy doxal dëkk te loolu tax ku ci nekk mën a wóolu sa moroom te mën a jàppalante ci liggéey bi nga xam ne moom lañ lay xaar. Mouhamed Sylla moom Birahim dañ ko dañ ko euh, bu baax.